jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne ñoo leen ko diggoon euh, ñëwoon nañ Cees Caay dellu siwaat nañ biir Cees Kaay seet si fi kenn koo xamante ne kenn du ko présenté ci réew mi muy Idrissa Ndiaye sëtul lëg daawur bi moom lañ seet siwaat Euh, méthode bii ñu ko seetsee nag bokkut ak bii paase bi weesu dañ ko seet si ngir mu waxtaan ci lépp loo xamante ni fa la jaar ci carrière moo ngi léppam bi yoon nag damaa ñëw ngir seet ko ci beneen seet si beneen anam parce que bi ma bi ma ko jëlee d'habitude gis naa ñoo xamante ne ci commentaire yi ñu ngi naan Idy est mën na li muy def est-ce que Idy li def maîtriser na ko tey nag damaa ñëw ngir ñu waxtaan ci li muy def est-ce que na ko lan ak lan ak lan ak lan la war a def tey moom dama koy contrecarrer ba dëkk bi yëngu. kaay sëñ Basirou borom mbég meeg taal bi kaay yegsil yegsil ci kër gi. bismillah. ayca. nit naa ko <laughs> kilifa gi. salaamaaleykum. siyaar nan de. maa ngi lay siyaar de. naka mu mbaa yaayam jaam. tawféex. jëwriñ. maa lay delloo siyaar. naka jaamu ji baax sant baax kilifa ñu ngi lay siyaar. maa lay siyaar bu wér naka jàmm ji sant ñu ngi sant yàlla mbaa yaa ngi am tawfeex ñu ngi sant bu baax a baax waaw maa ngi sant yàlla non jekk na daanaka waaw ay ca kon ñu dugg ci biir xool Idrissa Ndiaye kaay sëñ Basiru ah sëñ bi fii moom taaru na de fii de bokk ak fi ma ñëwoon keroog. woon defar. Mhm. sëñ bi yii moom photo yi moom nataal yi faw nga présenté ma ko ba pare de nataal yi moom faw nga ñëw fii sëñ bi kii. kii man la. kii man la bi la yoof la dëkk. Mm-hmm. Mm-hmm. si li may yëngu si lay yëngu. Mm-hmm. kook sama maam may sa gay la dafa dafa làqu dafa dëdd àdduna. fii yoof la woon bu nu kër Mouhamed Ndiaye. ndëpp lañ doon def tuuru Mouhamed Ndiaye moo daan dëpp waaw tuuru Mouhamed Ndiaye la woon. fii tamit. la. waaw sama maam Maysa Gueye moo nekk noonu. fii lu doon def nii. fii dañu doon tuuru maam Njare. fii nga mel ni waaw foofu foofu de. foofu de man man lañ doon jiin noonu ak man ak Ngañ Baay la woon Ngañ Baay moo nekk Yoff. waaw mooy mooy moom mooy géwél bi nga xam ne moo yor euh, reenu jinne bi nekk yoof moom mooy tuuru tuuru maam Njare chaque at moo koy tëgg mhm. koo ngañ bàyyi lii ASC Garmi bu Fatick la waaw ASC Garmi bu Fatick yooyu waaw ñoom ëgi Fatick moom ma booleeg ñoom ak gaju kuñ naan gaju seen benn dirigeant mhm. moom ma booleeg ñoom ma yor leen deux ans yoo xam ne ñoo jël coupe maire ñoo jël coupe zonal ndeysaan mhm. ñu ñëwaat fii. ba tey. fii tamit yaa ngi ràngoo fii tuuru maam Njare la si guddi gi. Mm. ñuy woy waa Kër Lëg Daawur Mbay. Mm. fekk moment bi xar naa daal. xar naa xar mooy la xar mooy actuellement moment bi maa ngi ci beneen monde. maa ngi ci monde euh, rab yeeg jinne yi falaa taxawoon falaa nekkoon. Mm. Mhm. Mhm. bi ci kaw. bi ci kaw moom soo xoolee ilu ilu yoof bi lañ jël. indi ko teg ma si tefesu ndox mi ma taxaw. day signifié day wane ni. borom il bi laa borom ndox mi laa. Hmm. day wane ni falaa bokk ñu teg ma foofu xëcc. Hmm. lii tuuru maam njare la woon photo bi tuuru maam njare bu daaw bi. Hmm. bi ci euh, dem. bu ASC Dames bu Medina la bi ñuy gagné jamono 1 yi. coupe bi dañ ko indi après sama biir xam bu ma ko doon sang pour coupe bi ñëwaat beneen at bi. pour loolu la woon. coupe bi coupe bu ASC Mbëtti Pom la. Mbëtti Pom bu Dakar seen coupe la bi ñuy gagné face Delorme. final coupe bi après sama kër lañ koy indi lendemain bi. ki indi woon coupe bi mooy Lamine Danfan. moo ma moo indi ñoom moo ma booleeg waa Mbëtti Pom ba ma jàppale woon Mbëtti Pom. Mhm. ah Idi loolu day yéeme na bii nag. bii moom tamit ñaari coupe ñetti coupe la. ñetti coupe coupe cadet. Hmm. coupe vétéran coupe senior. ASC bu Derkale la. ci benn tàkkusaan ma jëlandoo coupe yëpp. <laughs> eh Idi dinañ laale man ak yow. mais coupe yee ngay gis ASC mbooloo bu dakaar la bu nekk ginnaaw stade Demba Diop ak ASC Déggoo. Hmm. waaw ASC Déggoo bu nekk ci côté foir bi. Hmm. coupe yooyu bu ci kaw moom coupe ASC HLM Grand Yoff la. waaw mooy bi ñuy gañee équipe ñoom ma Demba bi. Hmm. ndeysaan waaw ah, gis nga affaire yi bëri na sax bagage yi bëri bëri na yii rek lañ lañ lañ lañ lañ def. yëpp xajul fii daal. waaw ah, yëpp fii daal. mais lële. lële ci biir lu mu doon. waaw ah, fële sama sama sama jal sama jalang bi moo fa nekk. jalang bi may liggéeyee mooy béjjén yi nga xam ñooy jul wàllu deret ak soow ak yooyu. Hmm. yooyu fa nekk yeneen yi samay gàllaaj la yi may takk rek moo nekk noonu. Hmm. waa takk li takk ko protection la en même temps tamit. day yombal sa sa sa sa say rawaxaan ñu ñëw euh, wuy si la parce que ñun si wàllu rawaxaan la ñuy liggéey ak wàllu jinne mhm. waaw moom lañuy moom la ñuy liggéey si yooyu lañ nekk di ci liggéey mhm. yàlla nag jagleel ñu si am loo xam dañ ko wu dañ ko jàng ji tarbiyu ko nekk si daara nekk ndongal daara jàng si ba xam ci lu bëri bëri am loo xam nag am ndono la suñu maam ko mën naa ma mbóoj mhm. kon Idi dañ koy bàyyi mu toog su ko defee ñu gën a wéyal waxtaan bi ay ca bisimilah. mbokk yi comme ni ma leen ko waxee woon dugg si naa ci kër gi euh, dugg naa ci fi nga xamante ne fa la Idy di liggéeye gis ngeen nataal yi nga xamante ne wan na leen ko ku ci nekk mu wax ñëw nañ nag tiim euh, layu bi tiim lépp ginnaaw loolu dama koy bàyyi mu nuyoo nuyu mbokk internet yi su ko defee ma wax ko li waral ñëwaat bi ci kër gi Idy maa lay nuyuwaat bu baax di la siyaar. auzu billaahi mina seytaane rajiim ginnaaw bi ma sante yàlla. sant yonent bi sant samay ñaari waajur sant sama sëriñ sëriñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaa di ñaan si darajay baayam muy sëriñ Fallou Mbacke mu gën maa taxaw gën maa jàppale. di nuyu nag di santaat di nuyu la grand jaraaf di Cap veer muy jaraaf Youssou Ndoye moom mi nga xam ne bi ma demee ba jébbalaat ko sama bopp ba tey tawféex rek laa gis ak yëkkati ko ah di nuyu di leen nuyu di nuyu waa senegal di ñaan si réew mi jàmm. di bisimilah jàmm. di bi passé dama fi ñëw ñu waxtaan ci lu bëree baree bëri bi yoon dama ñëw ngir ñu waxtaan ci leneen loo xam ne parce que ginnaaw Idy fi mu jaar la muy liggéey la ca bëri wax na ko euh, wàllu ñaan gi nga xamante ni yaa ngi ci fi mu toll nii ñaan gi lan nga ma ci mën a wax. waa ñaan gi de wax dëgg yàlla ak yoon ñu ngi ciy liggéeyal ay doomu aadama njaay yoo xam ne ñu ngi ciy gis tawféex ak taysiir ñu ngi ciy gis tawféex ñu ngi ciy gis tamit ab yëkkati ko ñu ngi ciy gis tamit ab ab ab leneen loo xam ni nekkul woon si seeni mbir ñu gis ko si. parce que ñaanal doomu aadama Ndiaye euh, mu gis njëriñ li dafa jafe. waaye nag bis boo ñaanalee doomu adama Ndiaye ba nangoo honnête taxaw ne la gis naa la ma defaloon sant naa am naa ab tawféex loolu kon alhamdulilah. non day day day dóor wala idi euh, fajam demeewul noonu idi mës ngaa faj nit mu dellu siwaat ci say loxo dellu siwaat ne la vraiment li ma fajoon gisuma ci dara. xam nga yéen ay journaliste ngeen. yàlla may na leen fu ne ngeen di dem mun naa ni wax ni ay jinne ngeen si wàllu bi ngeen di yëngatu képp kuy journaliste parce que fu ne ngeen di dem nit ku nekk ngeen lokkati. fekkee am na yéen xam ngeen parce que musoo leen dox dégg ñu ne idi mos na faj nit te nit wéru man ku ma faj ci kàttanu yàlla. wér nga ndax man lépp lu ma teg sama loxo Serigne Fallou Mbacke teg ci loxoom lépp lu ma teg sama loxo samay maam teg ci seen loxo lépp lu ma teg sama loxo sama xol teg ci loxoom. Mm-hmm. <laughs> parce que ñaan ak faj dafa doon loo xam ne si xol la. Mm-hmm. doonu loo xam ne maanaam tey doomu aadama njaay kii da koy bàkkoo xam-xam bu feeñ am na xam-xam bu làqu am na xam-xam bu làqu mooy bi nga xam ne moom ngay tëju sa biir urngër sa biir néeg kenn du yëg kenn du tin xam-xam bu feeñ mooy bi nga xam ne moom ngay wane si réseaux sociaux yi ñëpp gis ko. muy faj doomu aadama njaay ki wala muy dimbali doomu adama njaay ki pour doomu aadama njaay ki am ndam waaw waaye ku naan ay dóor la wala du dóor yàlla xam na yonent bi xam na waaye ku ci jëflanteeg ñun chaque jour ku ci jëflanteeg ñun di nga bàyyi ñoo doon jëflanteel ñëw jigéen a jàpp fii xeebuma kenn nag dingatuma kenn nag waaye nag daas am lool danga koy wax rek pour mu leeral bëtu askan bi xam ni Idrissa Ndiaye dafa taxaw pour jàppale askan bi ah kay. mais mooy gannaaw yi ngay waxtaanee yi ngay def yëpp nit du jékki-jékki jotewul ak yow dara si leen dara mu woo la téléphone menacé la wala mu wax la loo xamante ne gënalu la ci mu jugee ci liggéey bi. waaw alhamdulilah nit nekk na ba Espagne woo ma saaga ma te mosuma kaa liggéeyal xaw ma ko te yow envoyé la audio yi envoyé naa la numéro téléphone lépp te bi muy doog a ñëw ak man daf ma nuyu ça va Idrissa na nga def yaa ngi am jamono ko maa ngi sant mm-hmm. man nuyu ko fay ko fay bu bu respectueuse mu saaga ma xam nga jalousie fu ne lay am. waaye nag xaw ma xaw ma ndax mosuma sekk ak moom liggéey xam nga jalousie fan lay commencé dans la vie euh, man maa bàyyi tontu ñenn nit ñi man ku may provoqué sax nekkatuma ci yooyu parce que mën naa lañ mën. Hmm. mën naa taxaw fañ taxaw tontu comme ñëpp waaye nag soo nekkee si ab yoon waroo gersu ndax moment bi ngay gersu. si lu si la si lu bëri di la romb te gertu ni déedéet si kanam rek la ñuy xool ci kàttanu yàlla. <laughs> loolu nañ ci def triangle A rek ñu jéggi ko ndax xam ni xelam moo toll foofu. xelama esprit moo toll foofu. esprit moo toll foofu mais est-ce que Idy jéggal na ko. non ñun léegi xam nga dañuy jéggal di jëlale. Idy xanaa loolu lu bees Idy bu njëkk de ku ko laal rek ku ko xori rek mu. waaw loolu yàlla yàlla def na ko. am naa lu ma ko wax si vocal nee naa ko. këyit dina la fa të liggéey gu baax dina la fa të wax naa ko. non xam nga xam nga xam nga noonoo du xel gis nga nga daggal nit ki saaga ndey. yaay nu mu saxee si xol. yaay nu mu saxee si xolu doom doom nu mu saxee si xolu yaay nga téye nit ki saaga ko ndey defu la waxu la gis nga doomu Adama Ndiaye c'est très important nit ki bu ko saaga soo ko détesté soo ko bañee bul jël numéro am am na ñu bëgg Idrissa Ndiaye am na ñoo xam ne chaque jour dañuy xëy suba teel di ma ñaanal sama yenn client di ma ñaanal te musuma sekk ak ñoom liggéey am naa koo xam ne xeex na ñu dóor ko ba ñam wadd ngir man mu ngi ba Belgique. te te bi émission bi bi ma ko defee ak yéen la ma woo ma sa numéro wër naa ko ba sonn pour am ko. waaw waaw Sonacos la dëkk ña ñaambur Diourbel la dëkk. foofu la dëkk. mu ne ma yow Fadiga El Hadj Ousseynou juuf Krépin Diatta ku wax seen kaw ma dal ci seen kaw loolu bëgg la yàlla suñu borom moo koy def du ko lu ko Idrissa Ndiaye defal Idrissa Ndiaye defal ko dara ndax defaguma fi dara ba nit di xeex ngir man am na ñoo xam dañuy jooy ngir man am ñoo dañuy werante ngir man nee naa leen ñoom ñëpp nañ toog dal ñu xam ne ki ñuy xeexal wala ki ñuy weranteel mat na sëkk man na ab guy fees na si li mu doon duñ mës a dégg safaan ci kàttanu yàlla chaque jour jàmm la ñuy dox di ko ubbee di ko jëfee di ko doxalee ci kàttanu yàlla. ci biir wàllu faj mos ngaa faj koo xamante ni vraiment kii euh, faj naa ko mu wér wala faj naa ko wérul mais bi ma ci bi ma ciy liggéey coono gi ma ci daj daal sonn naa ci trop. dal na ma biir Gàmbi biir Gàmbi gii rek dal na ma koo xam ne dama ko jël engagement pour faj ko si guddi googu dama doon xeex xeex bu metti non ñi may xeexal ay ay ay rawaan ay ay jinne laa xeexal xeex bu mette métti parce que ay affaire sëy wu jël la nekkoon ay affaire yu bëri damaa xeex ba jug taxaw wàcc si lal bi ma tëddoon barki Mouhamed xeex xeex xeex bu métti ah day am des fois dañ lay indi client nga koy faj nii soo paree yaay subir lu méttee métti da ngay pare sa cër yëpp damm nga xam ni mbër ngaloon loon nga loon nga loon nga ja euh, nga loon jàkkaar lool. Hmm. mais li du loo xamante ne da toog gis caméra bi affaire bi neex nga jékki-jékki di wax ne faj naa kii faj naa kii loolu mën nga ma cee indil preuve preuve bu xamante ni ku ko dégg day xam ne. man Idrissa Ndiaye yàlla xam na ni yonent bi xam na Serigne Fallou xam na ni du ma toog ci caméra yi di bàkku gis nga wàllu aadaab cosaan wàllu sunguf ak reen ñun maanaam amatuñu lu ñuy prouver askanu àdduna parce que suñ borom may nañu ko suñ borom ba ñuy doog a door teg nañu si yoon xëy na nag li ñuy doon ab ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw tuuti am na luñ liggéey si réew mi am na lu ñu tamit loo xam ne nit ñi ñu ñu koy ràññee mais waaye wàllum faj amul lu luñ ciy tricher wala luñ ciy wax leneen ak leneen te su lul faj rek nit ki ñun dañuy jàppale nit ki su lu ne. maanaam tey nit day nekk ba bitim réew am ay problème woo ñu ñu saafaraal ko ko jàppale ko ko tey yàlla tax ndax suñ borom moo ñu booleeg moom kon loolu dañ ciy sant yàlla bu wér a wér. loolu loo xamante ne la kenn mënu koo wax mais. dinañ ñëw yu bare bare bare yoo xamante ne fi mu toll nii war nañ ko mën a waxtaanee mais Idi euh, li ma bëgg soxla naa euh, lu lu waaj naan preuve nit preuve la soxla. parce que bëgg naa nag tey vraiment nga jël sa téléphone bi wool ma ñaari nit wala ñetti nit yoo xamante ni jot ngaa jëflanteeg ñoom. ñuy wax mbokk internet di di dégg. Euh, Eddy fi mu toll nii wàllu tukki. nit ku ne ci réew mi. dëgër le lool bëgg a génn fu mu ne mu dem fa ñaan kayit mënul am mën nga ci dara. waaw mën nañ ci dara ndax ñu ngi ciy jëflanteeg ñu nekk bitim réew yàlla xam na ne ñu ngi ciy jëflanteeg ñoom te ñu ngi ciy dem yàlla ñu suutu laal mu ñu ci may dara gis nga man ñaan gi may ñaan nii. nekkul wutukaayu xaalis. lii dama ko def pour loo xam ni euh, pour wàllu social. Hmm. parce que j'ai des projets yoo xam ne war naa kaa tëral. war naa dimbali ñu tëdd ci lalu hôpital yi ñi nga xam dañoo am ay problème ren ñoo nga xam dañoo war a def ay jalis war naa mën a tabax ay jumaa jaamu yàlla yi di si julli. Hmm. war naa mën a dimbali keneen koo xam ne loxoom jotul ginnaaw war naa mën a dimbali koo xam ne këram cinam day dëppe. ok dama am ambition yoo xam ni defuma ko ngir folklore wala ngir kii déedéet moo tax chaque jour yàlla suñu borom di ma gën a kaweel moo tax chaque jour yàlla suñu borom di gën a dooleel sa Ndiaye ah kay alhamdulilah kon ñu sant yàlla mais fekkee nag da bëgg ñu wooteel la mun nañ la wooteel quelques personnes ñoom ñu wax waaw ah, kay. wooteel ñu duggaale ci waxtaan bi ñu gën a yëngu ci waxtaan bi Idi daa mel ni Idé ngay woote de ñu déglu ki muy woo. lan lay wax ak moom. Hmm. salaamaaleykum maaleykum. maaleykum salaam. kilifa gi maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax. Eh, euh, waa kii nag Baye Jili la wasaare làmb. Baye Jili. waaw. noo def coono mbaa yaa ngi am jàmm. waaw waaw ñu ngi am jàmm daal. alhamdulilah yaa ngi yaa ngi ñu ngi lay déglu ci àdduna bépp ñu ngi lay déglu dañu ñëwoon tey ngir seet si sa njaay mu bari mu bari ñoo xamante ni jëflante na ak ñoom mu jël mu jël sa numéro euh, wax ni jëflante nga ak moom damaa bëggoon. Euh, avant mosoo leen jëflante damaa bëggoon nga wax ma yéen ñaar seen xamel fan la jóge ak lan nga jot a xam ci moom. Eh, eh, euh, maa ngi leen di ziare eh, man mbokk Basirou Diouf la. voilà man. Euh, Gambien laa te ma nekk fi euh, Italie. Mm-hmm. léegi euh, bu ma nekkee fii Italie yàlla def ma am ay ay kayit léegi nag ma ñëw fii almañ mm-hmm. mais balaa loolu balaa loolu balaa loolu ñun italiens yi et africains yi nekk itali dañoo seetaan ñu bëri dañoo seetaan vidéo vidéo yi Serigne Idrissa Ndiaye mm-hmm. dañ dee seetaan vidéo mi trop. Euh, ñu waaw waaw yut si maanaam xale yi xale yi xale yu ndaw yi nekk euh, kii ñu nekk euh, itali mm. dëgg dëgg dañ dee seetaan vidéo mi ñu dee ñu dee def ak liggéeyum bi waa ak liggéeyum bi. Mm-hmm. ci liggéey bu ñu bu mu nekkee noonu. Mm-hmm. voilà léegi ñu xool xool voilà ñu xool parce que dañu xam ne ñun dañu tukki xam nañu nit ku baax ak nit ku bon ba pare ñu xam ne kii nit ku déggu nit ku déggu la ci liggéeyam bi. Mm-hmm. wante même même même temps yooyu nag yàgg na même temps Coupe d'Afrique bu passé boobu noonu vidéo bi mu nekkoon ci stade yooyu noonu yépp ñun dañu dee topp daal maanaam dañuy topp vidéo mi daal di di di di kii la di déglu di seetaan. dëgg la. léegi bu ma jógee foofu noonu ma ñëw fii euh, yàlla def ñëw fii Allemagne fekkee nit ku ma ñëwoon. Mm-hmm. Euh, te jàppalewu ma moom euh, kooku moom waxoon ma ñëw ma ñëwee kooku euh, euh, jàppalewu ma comme li lu ñu waxandoon man ak moom te defu ko mm-hmm. léegi bu ma woowee ma woowee idi man ko daal ah man de balaa balaa sax balaa yaa nga baal ma nag balaa may balaa may ñëw balaa fi Allemagne fekk woowoon naa ko nee naa ko ah mm-hmm. maa ngi a tukki nga xoolal ma mm-hmm. waaw nga seetal ma Mm-hmm. léegi bu ma ñëwee fii ba Allemagne yàlla def daal sama yoon bi sottiwul aw ba fu ma dëkk te maa ngi waroon a dellu. Mm-hmm. ma expliqué ko sama problème ma woo ko ma expliqué ko ma ne ko ah man de ab ñëw naa fii am naa ay jafe-jafe eh, nit bu may waxoon ma ñëw pour ma affaire liggéey gisuma ko. Mm-hmm. te ba pare eh, maa ngi fii ci biti daal maanaam. dëgg la. sëriñ bi mu ne ma sëriñ bi ci boppam mi Idrissa Ndiaye moom ci boppam mu ne ma. kooku dee lu mu def baaxul. Hmm. wante eh, sama diggante ak yow mu ne ma xaw ma la xamoo ma. Hmm. te musuñoo eh, maanaam suñu am maanaam jokko affaire liggéey. dëgg nag dëgg seetaan waaw musuñu jëflante. Hmm. mais dañ comme ko nga ne nag ñoom seetaan samay vidéo mu ne ma léegi dinaa la jàppale. ma ne jàppale bi ci lan mu ne ma ah dinaa la yónnee xaalis. Mm-hmm. dinaa la yónnee xaalis maanaam pour nga dellu Italie. Mm-hmm. mu def ko mu def ko ci lundi ba lay passé. Mm-hmm. ma récupéré ko euh, mardi passé. mooy cent cinquante euros. mu nekk ñaata ci CFA. Euh, CFA mënuma koo xayma mais dina nekk ci xaalis Gambie I think seven eh, seven thousand bu mm. nekkulee seven thousand six hundred mm. mbaa dina nekk parce que réeb eh, réeb bu nekk foofu léegi laa xamagul léegi ñaata law dina nekk seven dina nekk seven thousand mm. I think five hundred or six hundred mm-hmm. waaw kon gàtt gàtt gàtt yegg na ci sept cent et quelques mille voilà merci merci mm-hmm. Mm-hmm. merci euh, bu mu ko defee léegi bu mu ko defee waaw bu mu bu mu ko defee léegi ma dem récupérer ko ma jël ko bu ma ko jëlee ba pare. Mm-hmm. ma woo ko. Mm-hmm. ma ne ko de affaire bi jot naa ko. Mm-hmm. ma ne ko léegi fu mu nekk nii maa ngi war a kii eh, maa ngi nii ci yoon bu yàlla maa ngi nii ci yoon di dem. même may nekk ci yoon bi yépp di dem nag jokkoo nañu. mais dafa fekk tamit moom mu ngi jàpp parce que mënuma eh, di ko woo di ko woo di ko woo tout le temps tout le temps mais il faut ma yëgal ko ne. maa ngi ci yoon. Mm-hmm. te balaa loolu sax day day kii day gudd mais dinaa la wax lenn dinaa la wax dinaa la wax lenn sëñ eh, sëñ bi. waaw. ku mel ni Idrissa. Mm-hmm. jafe na. ah. waxuma ne amul de. Mm-hmm. mais jafe na. ku mel ni sëriñ sëriñ bii nii te xale la te sëriñ bi nii xale la parce que ñun dañoo seetaan vidéo bi xale la. dëgg la. dinaa la wax leen ni fu mu nekk nii Sénégal parce que africain waxuma Sénégal sax africain ci boppam moo xamul nit ku baax ak nit ku bon. parce que sëriñ bi lu mu def nii nii même ñun ñoo xam ne ñu ñu bokkal ndek bay xoolal ko ma wax ne ma ñëw fii ba pare mu def ma jëf ji nii. saan mu dimba mu dimbali la te yàlla tax te xamula xamula xamoo ko. dimbali ma. te mm. fekkee xamuma. te mm. fekkee xam na moo tax ma ne la jamono jii nii dafa. dafa euh, dafa doy waar dafa dafa kii jamono jii nii maanaam dafa doy waaru. Mm-hmm. lii def ko xam naa ne am na ñu koy def Sénégal au Gambie mais dafa bariwul laa wax bëriwul sëriñ ñu koy def bariwul jërëjëf ci témoignage bi dinañ gën a dugal ci waxtaan bi ñu lay jëfal bu baax a baax a baax kilifa gi. merci. merci te eh, man man dinaa am eh, maa ngi wax tuuti nga baal ma. waaw. maa ngi maa ngi gërëm Idrissa dinaa ko bàyyi ak yàlla yàlla rek moo koy fay. ndeysaan. Hmm. allo. waaw maa lay dégg moo ko fay te te yàlla lépp loo xam ne maanaam lu eh, yàlla lépp lu moo faj rek yàlla mu teg ci loxoom rek yàlla kooku na aajoom bi faju mm-hmm, mm-hmm. waaw yàlla na yàlla def loolu képp koo xam ne nag jokkoon ak Idrissa te maa ngi mm-hmm. dem ci Idrissa mi Serigne Idrissa Ndiaye mi mu nekk Sénégal te fooyee fan yi mu ngi Gambia nee leen dem leen ci Idrissa parce que nekkul eh, Serigne boo xam ne Serigne Tapale Ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf. maa ngi jërëjëf kontaan naa bu jërëjëf jërëjëf. waaw man Idi bii moom bokk na ci li nga xamante ni tiis na ma jàpp na jàpp na ma vraiment nit koo xamante ni xamoo ko xamula mu nekk bitim réew nit ci jafe-jafe nga yëkkati ndimbal moomu defal ko ko te yàlla tax bi nga koy def loo ci doon séentu. waaw alhamdulilah ñu sant yàlla nee naa la. man nitu nittu nit nitu yërmande laa nitu daara laa. bi may nekk tout tànk la ma sama maam jël yóbbu ma daara Cheikh Wade warang maam fa yaayu daara am baayu daara. Mhm. ñoo ma doon jàppale ñoo ma def lu ne. Mhm. dama doon soxla yére bu ma sol sax ñoo ma koy jëndal. gis nga ku mel noonu su jaaree si yooyu. Mhm. wala nga toog des fois comme ku mel ni Pa Ablaye Sall yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana. bi may nekk géejawaay pourtant suñu këram géejawaay nekk këram laa nekkoon man nit ñi. ñoo ma defal ba ma toll fi ma toll. nit ñoo ma jàppale. Mm-hmm. ba toll fi ma toll kon su ma yàlla mayee as tuuti war naa kaa mën a bokk ak doomu aadama njaay. Mm-hmm. client daf may wax sax waxu faj doom lu mu lu mu kii man dama bëgg képp kuy ñëw si man rek respect soo ko jiitalee gañe ma. Mm-hmm. taalibe soo ko jiitalee gañe ma. mais soo ñëwee di ma incarné nee ni dama lay wan ni man gënoo ma doon noble. kii bi ma ko koy defal dama ko laaj. mu ne dafa ñëw ba Allemagne xaritam ma ko waxoon yàgg nañ ñoo ay dëkkandoo lañu mu ne ko ñëwal Allemagne dinaa la wutal liggéey te moom am na kër am na nekk si kër waa ji xam naa waa ji da koy déranger waa ji ne ko dimanche ginnaaw suba laa la may pour nga génn sama kër. mu expliqué ne ma naa ko si ay ñaan pour xool lan mooy problème parce que lu mu ma ko sëñ bi ma muy ma woon nañ. mais après déggaatu ma la waxoo ma dara ndax soo ma waxoon la yoon bi nii ak nii nii ak nii soo demee pour mu a ba mm. ne ma waaw ne ko lan mooy problème bi mu ne ma nee naa génn këram te fii aw ma fu ma nekk fi ma toog si table bi di reer boobu maa ngi bi fi ma toog di reer mu mel dañ maa maas courant sama rongo ñu commencé génn ma tontu ko ne ko kooku moom li mu def dara baaxu ci de maa ngi toog ak Mamadi Mouhamed ñu ngi toog ñu waxtaan ma ne ko billet Allemagne Italie ñaar lay jar mu ne ma sàngam lay jar ma ne ko est-ce que soo ko amee di nga dellu laaj ko mu ne ma dinaa dellu si ma amee. ma xool ne ko dellul Italie Italie lu gën la si yow te soo delloo dinaa la jàppale si wàllu sangal mu ne mais aw ma ma demee ma ne ko bu lëndee dinaa la dugalal xaalis ma sa tur ak sa tur carte d'identité mu ko lëndi bi moo ko waxoon mu xëy ma woo ko ne ko yaa ngi si jàmm nuyu ko ma ne ko maa ngi lay dugalal xaalis bi boole ak ku ko dugalal xaalis ko xaalis bi. parce que gis nga gis nga àdduna. ñu umpalee ñu xamul Idrissa Ndiaye kese taxaw di wax. Eh, Idrissa Ndiaye dafa doon nit koo xam ne ak a baax ndax kañ ma tuddee rek. kañ ma tuddee rek fu mu musaana dem déggul ma man la tuubal na tuubeen yépp tabax fa ay jumaa jumaa ji naan sàmm bi bàyyi Ñas tabax sama turandoo moo ko doon jiite sama kër maam mu ngi biir sàmm Kawlax ku ma xamul nag loola neex mun nga wax waaye nag yàlla xam na yonent bi xam na gi nga fii ñu fi nekk ñëpp bokk ma see kenn ndaay ak baay ñu nekk sama kër gi yépp samay xarit lañ te ku si nekk soo wàccee dinaa yëkkati la ma liggéey fii jox la ku ci xew la tamit dinaa xam na ma say jàppee ma jàppee sax waaye nag ñun sénégalais ñooy yàkkante suñu biir moo tax des fois sax du ma bëgg a toog Sénégal lu bari. ok alhamdulilah dama ne ma maa ngi Gàmbi. parce que émission bi bëggoon naa ñu tourné waat ko mais danga ne ma maa ngi Gàmbi maa ngi Gàmbi maa ngi Gàmbi. waaw boobu sa diggante Gàmbi. waaw Gàmbi am naa fa jàmm am naa fa salaam. te bëri naa fa popularité. di nuyu Jamaïcain ndax bi ma ñëwee ñëw na sama kër. le grand promoteur ñëw na sama kër waxtaan nañ conseillé na ma. ñëw na sama kër conseillé na ma teg na ma ci yoon wax na ma nu ñu fiy doxalee dëkk bi nan la ñuy fonctionner. Mm-hmm. te effectivement bi mu ñëwee laaj ko sama kër a fekk mu fees dell. dafa fees dell. Mm-hmm. kon loolu ku xamul dara ku mënul dara këram du fees. kër lañ ma fa wutal de kër gaa nga tëjee su ma demee damay tijjiwaat. këru cinq chambres salon lañ ma wutal déggool ma xam te kilifa moom wutal moo koy fay. waaye biir Gàmbi dégg nga kër lañ ma fuutal kër laa lax de waxantuma de kër barki Serigne Fallou Mbacke tourné naa fa ay émission seen télé yi tegaguñ ko actuellement ni sax ay émission yoo xam man a kii nii Lamarana Diallo bii mm-hmm. journaliste Gàmbi ñoo ko doon tourné ay émission yu bëree bëri yoo xam ne am na fa mm-hmm. mais nag alhamdulilah ñu ngi sant yàlla léegi jëlaatal kii kii soo ko jëlaatee après ñu continuer suñ débat ci kàttanu yàlla. Eh, lii ba léegi <laughs> mbokk yi yéen a ko déggandoo. am na ci koo xamante ni dafa nekk ci jafe-jafe nekk bitim réew diggante diggante Italie ak almaañ jafe-jafe yooyu mu am bi mu ko woowee dafa xam ne lii ñaan mën na ci dara waaye faw nga dellu fa nga fa nga jóge woon ndax la Youssou Ndour doon wax naan ku xamul fa nga jëm dellu fa nga jóge woon idi da ko mujjee jox àddiya ne ko na dellu fi mu jóge woon asalaamaaleykum waaleykum kilifa gi maa lay siyaar bu baax a baax a baax waaw noo def ak coono mbaa yaa ngi ci jàmm connexion bi mooy xaw a kii waaye dinañ ko jot euh, noo def ak coono mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm. alhamdulilah dañu ñëwoon tey seet si sa Ndiaye euh, di jël ay témoignages ci moom ñi nga xamante ni jot naa jëflanteeg ñoom euh, ma woo loo xam ci moom. waaw ñu ngi sant yàlla yow moom xam na mel na sa baat bi si. Hmm. si Idrissa Ndiaye ngay ngay jëflante moom. ndeysaan nee na miin na sama baat bi may jëflanteeg ci Idrissa Ndiaye wasaare waaw. waaw. Mm. so yow Youssou Diagne Idi moom Idi moom du ma wax moom dara parce que moom nit bu baax la. Mm. so moom dafa am dafa ñu nekk sama yaram moom moo ma wax lool. moo mm-hmm. moo moo try mu dindi lool waaw. gàllankoor yi lan la woon ak lan la dindi. Euh, parce que dama dama jotu euh, jotu benn série boo xam ne kooku dafa ma sangal nee ne ko su ma euh, benn série moo ma ma jox sangal. waaye maa ngi maa ngi sangoot garaaw boobu sama yaram baa ngi commencé diis kooku moo ngi tëj sama affaire man xaw ma si dara. Hmm. waaw ba ma deflante Idi Idi moo wax ma nee sa yaram bi nee su di eh, mu eh, mu ngi commencé di si série boobu day day tëj sa affaire yi. Hmm. waaw. mais mais li ma bëggoon xam euh, xamante bi fan la jógee sa xamante ak Idrissa Ndiaye. waaw xamante moom man dama dafa am benn eh, dafa dafa dafa defar benn sortie kii RTS RTS 2. waaw. waaye ba ma ko ba ma ko gis rek après ba ma seetaan boobu mission boobu. Hmm. après guddi laa ko tëddi ba ma tëddi guddi ma gënte moom. nga gënt ko. moo wax ma gënte ko ba ma ko gënte eh, gënte boobu ki Idi mu ma ma ne ko Idi yaa yaa nekk Idi Idi Sandiara ne waaw ma ne dama am soxla yow yaa war a yaa war a fay sama soxla. Hmm. olof bi leer na naa ci li dégg waaw. Hmm. après ma toog guddi bi idi ne waaw dinaa la dinaa la jàppale si gante boobu mu ngi loolu. Hmm. après après laa toogu ma ma euh, ma damay woor nomba eh, ma woor eh, téléphone nomba mu. waaye hmm. gis ma eh, gis téléphone nomba pour pour ma jàppale téléphone nomba bi. Hmm. waaw dafa am benn sortie bu ma seetaan eh, mission bi ma gis téléphone am ma ba après ma woo ko. Mm-hmm. ma woo ko ah, mu mu ngi mu ngi commencé waaw sama affaire yëpp. Mm-hmm. sama jabaru sama jabar mu ñëw foofu xam nga xam nga jigéen saki saki weer te ñu gisee eh, kii ne affaire yi. Mm-hmm. waaye man sama jabar nee na moomu affaire bi normal wul waaye ba mu jëfalante Idrissa Ndiaye nee na affaire bi mu commencé normal mu ngi normal. comme. ndeysaan. jabar hmm. ñeneen eh, jigéen ñu ngi gisee normal mu ngi ko gisee normal. xam hmm, hmm, nga loolu nit yi lu def lool xam nga loolu. daal parce que man sëriñ boobu mu ma def man kooku moo def moo moo man dama sama jabar ma dem eh, sama jabar mu jógee Gambie mu dem si Sénégal. bu mu dem foofu sëriñ boobu nee sama jabar dafa am dafa am ñaari jinna. ñaari jinne. waaw ñaari jinne nee jinne bi nee dina bu Màkka di la nee mu ngi mu ngi am trois cent trois cent quelque. Mm-hmm. waaw nee na moom nee na jinne moo dugg foofu jinne boobu moo traay nee na jinne bi nee na jinne bi nee dafa traay jinne bi pour mu génne ko. Mm-hmm. bu mu génne jinne bi nee na bi dañ ko nee na dafa moom moom lu mu wax nee na jinne bi dañ ko rey. Mm-hmm. waaw sëriñ bi bu ma wax loolu man ko bu ko man ko sëriñ man ko yow li nga rey jinne man ko li nga li nga wax ni dafa rey bu ko rey jinne. Mm-hmm. man ko nit eh, eh, nit soo amee jinne da ngay jinne bi pour mu dem waa rek ko moom man ko soo yow li nga wax man ko man loolu man dama tiit de. Mm-hmm. Mm-hmm. ndekete sa waa defu dara day dul rek. <laughs> ndeysaan laajkat xamul caaxaan dëgg la ndeysaan. waaye ci moom maa i ñaani maa ngi ñaani idi ku nekkee sëriñ nga nekk sëriñ bu baax man maa ngi maa ngi la ñaani rek eh, saatari nataaw rek waaye sëriñ yu bon yi ñun ñun ñu nekkee Europe yi mhm. sonde ay seri yu bon yi man ma son parce que sëriñ boobu bu ma deflante moom dama xaas bori ko fay waaye def def dara gisuma dara ndeysaan ndeysaan waaw moom ma jàppale ne ne moom dafa ma jàppale eh, anti eh, ne moom dafay defal ma comme moom ay kii nii nu mu tudd eh, moo nekk Seram ne moom dafa ma jàppal lool. Mm-hmm, mm-hmm. waaw nee na moom. Mm-hmm. nee na Serigne moom moom moom moom lay am yaakaar waaw moom moo jàppale man pour man sama mbir mu taawal man ko bu ma wax loolu man ko Idi yow di nit bu baax nga. dama kontaan moom. dëgg la maa lay jaajëfal bu baax a baax a baax jërëjëf. waaw jërëjëf kontaan naa ci. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf kontaan mbokk yi moom ay témoignage la yoo xamante ni jël nañ ko ci ñi nga xamante ni Idy jot naa jëflante ak ñoom mais boo déggee waa ji ni muy waxee nga xam ne ki làkkat la nga xam ne li muy wax lu mu gëm la lu dëggu la ci moom ndax bu dëggul woon euh, du ko wax wax na ba wax ki mu jëflante loon lam ko doon faj ak yëpp lii moom euh, dañ dañuy dañuy dañuy bàyyi rek mbokk internet yeeg ñi seetaan loolu moom loolu ñoom ñoo koy commentaire Idy ñu ñëwaat. ci équipe yi nga xamante ni yor nga leen barki démb gis nga équipe bi nga yoroon ka euh, nu mu tuddati équipe bi ne Maroc. Raja mu waroon dajeeg am na ASC bu mu doon dajeeg fii. Tëngéej FC waaw. Tëngéej FC ñoom ñaar ñu ñëw fii euh, ñu mat si niir. Mhm. Euh, Tëngéej dem Maroc. Dóor Raja ñu mat si niir dem par waaw alhamdulilah xam nga yàlla suñu. demee léegi da ngay wax lépp nu mu demee. non demeewul dara. Mhm. Tëngéej FC c'est la meilleure équipe. Mhm. dafa mën Raja gagné ko. en plus euh, di leen ñaanal tamit euh, victoire bi yàlla na leen jig. Mm-hmm. Euh, football noonu la tey da ngay gagné suba ñu gagné la te série chance la. waaw mm-hmm. ah. yàlla xam na ni série boobu su ma fekkoon biir stade jàll na nag su ma fekkoon biir stade. Mm. luñ luñ naawal samay penalty ma naawal seeni penalty mais nag mu ma fekk maa ngi liggéey maa ngi biir Gàmbi di liggéey. te yàlla xam na ni billaahi wallaahi bi raja raté ñaari penalty ñoom si lañ may doog a jot sama connexion sama lépp te mu ngi loon maa ngi woon en ligne maa ngi woon lépp mënuñu ma jot ñu may woo mënuñu ma jot ñu ngi may woo appel normal mënuñu ma jot. kon kay da ngaa jëflante tëngeej dañoo indi ku la gën a ku la a weex bu téye sa connexion. Oh. connexion tëngeej di dox oh. buy dóor buy dugg. xam nga xam nga football la rek. <laughs> des fois li ma naan football dama kaa mën te dama kaa maîtriser effectivement mm-hmm. que tëngeej FC ku tasanteeg ñoom ñaari match dugaluñu yaa ngi dégg baax ba waaye nag yàlla suñu borom moo ne woon damay ñàkk rek ma ñàkk. te nag doo doo ñàkk ba pare di si wax ab safaan wala di si wax ak leen munoo lu dul ñaanal te ngi jëf see mu bëgg a yegg yegg fa. <laughs> am loo xamante ne dama ko seetlu. Euh, ci ci ci wàllu football. Idi yow série penalty rek la sa rab di bañ série moom boo demee da ngay ñàkk. ak a mën Thiès fii laajal équipe yóbbu naa ko mat yëpp la ko gagné. barki Mouhamed déggoo man la yàlla li nga mënee chaque jour si lañ lay gañe gelewaar bu bu bu Thiès bii. soo buggee ma woo président bi léegi quart de finale série laa gagné demi finale série laa gagné te demi finale bi raté naa ñaari penalty yi waa ji am ñaari dugal gagné ma génne ko ci biti. Fandeen ñu ngi may déglu maam góor président mu ngi may déglu rate naa trois penalty yi waa ji ñetti dugal gagné ma jàppaat yépp moo tax man la la nga mënee rek des fois lañ lay gagné. mais liñ lay gagné ci série idi bëri na trop ñëwoon nga zone géej waaye am na ASC bu doon bëree écho euh, xawma ak ak ak bu doon bu doon football doxoon ci diggante. écho war écho maa ko yoroon match boobu dafa am war match boobu moom dafa am war. kan moo dañoo jël sëriñ boo xam ne bokkul suñuy mbir dafa am war du ma tudd turu sëriñ ñun xam waa écho yee ko jël jaag collection xam na bu baax li may wax dafa am war match boobu dañ ñoo war jaay. waaw ah, kay match ba moom dañ ñoo jaay. Hmm. ah mais yeneen mat série moom nga dégg ñu ne la Idrissa Ndiaye ñàkk na ko. am fa daan ñëw ñu koy wax gaynde kooku moom ah man daal déggoolu ma soo buggee ren nawetaani su amee ñu àndandoo nga téye sa caméra yi nga xool. est xam nga ne ASC ECCO mooy sama ASC. ECCO déggoolu ma sama kër maam la ñu sama kër maam Cheikh Fall Cheikh Fall sama maam la moo jur sama yaay tam gaañu. ndeysaan. ECCO laajal jaag jaag nga laaj ko bu baax a baax. Hmm. sama kër faale ni nekk foofu. sama kër maam la kookoo jur sama yaay ñoom El Hadj mm-hmm. ñoom ñëpp samay cousin lañ ak ñooñu. Mm-hmm. ah kay. noo gisee wasaare. ah wasaare moom nu ma ko gisee sant yàlla rek. Mm-hmm. sant laa ko gisee ñu dellu sant parce que bi ngeen fi ñëwee tamit gis nañ émission bi jaar na yoon ñëpp a woo. ñëpp am na ñoo xam samay papa la ñu woon gis déggatuñu yoratuñu woon sama numéro ñu woo ma waa ma foo nekk. am ñoo xam ni nekkuñu fii ñu may woo di ma remercier ah am naa si ay xamil yu bëri tamit. ay ñoo xam ne sama numéro dañ ko perdoon parce que numéro bi 378 bi. dama ko génne woon. parce que dama sonnoon après. ma génne ko tegee ko na le nekkoon ci ay affaires yu ma nekkoon nag. ba yàlla def bañ jekkaat ñu doo ko taxawaat. <laughs> loolu daal moo ci nekkoon di wax ni tamit wàllu faj bi lépp ak ngi fi lépp disponible na. waaw wàllu faj bi lépp disponible na si wàllu faj. cataracte daal lañ dut faj ak ay bët yoo xam ne dafa muuru mais leneen suy wàllu faj jàngaree kajoor ñu ngi ko tënk ko. waaw jàngoro yi moom dañuy faj ndoxum siti dañuy faj hémorroïde dañuy faj impuissance sexuelle dañuy faj faru rab dañuy faj wàllu tuuru ku bëgg ñu tuurul ko ku ku war a ibbeeku ku ku koo xam ne daal ay mbiram lépp a taxaw rab di ko yàq cataracte daal lañ faj ak jabet ak ku sa bët muuru loolu mënuñu ko ku ko am daal jaru sax ngay ngay ngay ngay ngay woote tamit ah ndax duñ ko faj. am naa sama rakk bu nekk kër ga mu ko bëgg a ñaanal ko mu dem daal idi kooku moom bëgg naa ko kii mu dem mën nga ma ci fexeel ba mu am borom kër. waaw kooku dañ ko dañ koy indi ñu xool ko xam lan moo nekk ci moom xool ba xam rab la xool ba xam leneen la rab wala jin waaw mais loolu rab en général rab ak jinne koy def dañuy xam ba xam lan la suñ xamee lan la ci kàttanu yàlla ñu faj ko mm. te suñ ko fajee taxawal ko moom borom kër incha allah mm. sangatu borom kër am na fi mm. ah waaw sangatu borom kër. parfum yi am na yoo xam ni ay maawul wird bi ak ak ak sayfu islam ak sutura bii rek am na yoo xam ne soo koy boole composant ko yenn xaatim yi ngay bind ak yenn sunguf yi nga jox ko nit ki mu sangoo ko nga gis ne mu sangoo ko rek nga gis nga gis ab mbir ah waaw sama waa ji bas amagul soxna ba léegi chaque jour ma wax ko mu ne bëgg na mais daa ok nan nga ko mën a def mooy sëñ bas kii kii su ko neexoon suba suba suba mu am baal baal waa ji ngay sànni xeer waay est-ce que mën nga ko jàll comme ñu mel ni moom dañoo bëri ci dëkk bi. non bëgg soxna mënuñu koo am. lan nga ban pexe nga. non kii mooy sëñ Bas kii moom macha allah macha ku si bëgg daal ku si bëgg say mbir yëkkati ko sa aaja euh, sotti soo ñëwee jëflanteeg sëñ Idrissa mu def si jàmm lam mënul mu bàyyi ko loxo su su si loxo yàlla. Mm. ah yàlla def ci la mu mën daal. Mhm. sa digganteeg daara yi lan la. waa sama digganteeg daara yi nag parce que doomu daara laa mën naa wax loolu parce que jaar naa daara. moo tax des fois foog ma leen di gëstu gersu waaw suñu amee as tuuti daw yóbbu fa da ciy baax des fois. du la wàññi dara. waaye soo yoree ab ab million wala ab 10 million téye ko na ah waaye lii de lu ma si génn mu wàññeeku yàlla du la dolli yàlla da lay jox nga joxe. nga santaat ko mu gën la dolli. waaw kay te si moment boobu lañ toog. fii fii waaw fii sama kër la. waa sama kër la. Ah, macha allah sant yàlla quoi. dañuy sant yàlla rek alhamdulilah. no kër am. nañ ay terrain tamit. am nañ ay terrain ay ñaata moom moom mooy lan la. de de de de de daal am nañ ñu ay projet yoo xam ni. ñu ngi ko bëgg tëral. Hmm. te bëgg nañ suñ papa Matar ba moom si boppam. mu jàpp si. Ah, man dama koy woo pour mu jàpp si su seetaanee lii. Hmm. na woo dama ko soxla trop. dama ko soxla gëj naa kaa dégg gëj naa kaa gis nag. dama ko soxla sama papa Matar ba dama laa soxla dama la soxla soxla bu urgent bu jàmp dama bëgg nga recevoir ma waaw ah, kay. maa ngi yóbbante daal ci gaa yi. Mm. Euh, xam naa yeggagul. Mm. maa ko maa ngi ko maa ngi ko maa ko soxla naa ko te kilifa tamit kenn du ko téye di ko bind. si mm. WhatsApp maa ngi WhatsApp numéro ba ngi nii naa ko woo fii. mais du loolu kilifa da nga koy jox respect. te dama ko soxla dama ko yittewoo guddiñ toll. waaw ah, kay. ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax kontaan naa trop ci dalal bi ma dal wax nga dëgg merci Idi euh, question bi mujj bi mooy euh, naar bi coalition ànd xeex naar bi temps mu ngi bëgg a rey booy ci Paris foot beeg yu mel noonu. ah waa Europe de maa ngi ciy jëflanteeg ñoom ñu ngi ciy gis nag as tuuti ñu ngi sant ndax yow am na yu ma la jotoon envoyé weekend bee feuille yu bëree bari kay kon alhamdulilah ñu ngi ci ñu ngi ciy sant yàlla bu wér a wér waaw loolu moom. Euh, ku si jëflanteeg ñun nag see que xam nga fii soo leen bëggee liggéeyal si wàllu loolu day xaw a métti parce que affaire bi dafa laaj tuur deret hmm. pour jàpp match dafa laaj tuur deret te faw nga tuur deret te soo tuuree deret si ngay mën a gis match yi du ma joxe nag résultat exact résultat exact ku bëgg ma jox ko di nga jënd gileem ak nag ma liggéeyal la ko résultat exact ku ko bëgg ma jox la ko waaye waaye nag actuellement nii yeneen yi maanaam kii ay gañe kii ay gañe xar ngay am ak benn bëy moo tax des fois booy dañ may woo sax suñ ma woowee ma wax leen ko dañuy foog dama leen bañ a jàppale moo tax des fois damay profité si ñu nekk ma leen euh, yi jox ko yenn booy ne leen ko yaa ngi dégg baax a looloo tax. mais day tombé ma ma liggéeyal ku nekk Europe génneel ko match yi. Hmm. far yàlla mu tombé nga message ma ma baaxee la match yi parce que match yi aw match yi loo xam ne maa ngi ko ci maa ngi ko ci kii. Hmm. c' était juste que pour pour ñoom ñoo koy soxla parce que Europe ba dafa dëgër. Hmm. yitte dafa dëgër looloo tax. Uh-huh. waaw euh, di la ko delloo nag. Euh, di remercier di santaat yàlla. di sant samay ñaari waajur. di santaat sama soxna. di sant sama waa kër di sant képp kuy ñëw sama kër sama sama sama sama sama copain yi fi nekk. di remercier tamit sama copain yi nekk Dakar waa café gi. Euh, di naan sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Axlaa na gën a taal lamp di nuyu nag sëñ Mamor Mbacke. sëtu sëñ Fallou bi nga xam ne mu ngi ba Espagne sëñ Mamour Mbacke maa ngi koy nuyu. bu baax a baax di nuyu sëñ Abdou Lahad Mbacke borom docteur yi docteur yi maa ngi koy nuyu. waaw di naan sëriñ Fallou rek na ma gën a yokk doole gën ma taxawu. di remercier waat tamit le grand jaraaf du Cap-Vert muy jaraaf Youssou Ndoye ah di nuyu sama nijaay Xaadim Mbay naan ko kontaan naa lépp moom la lépp moom la lépp moom la su nekkul woon moom tey mu ñaaw. ah di nuyu ñëpp nag ñë képp kuy ñaanal Idrissa Ndiaye am na ñoo xam ne ay kilifa lañ du ma tudd seen tur maa ngi leen di remercier maa ngi leen gërëm waaw di gërëm nag Samba Ndour sama waa ji sama xarit la Samba sama sama sama xarit bu baax la Samba Ndour maa ngi koy siyaar bu wér a wér nag naan ko fam fam jàpp foofu la daal waaw ah, jërëjëf ah waaw kon dañuy ànd dañuy àndandoo dem seeti ji ko sëñ Fallou rek ok jërëjëf jërëjëf. jaajëf mbokk yi ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax a baax Idrissa Ndiaye la woon euh, am na benn message boo xam ne bëgg naa leen ko lancer yéen ñi nga xamante ne yéen ni ci réew mi doon doomi Sénégal moo xam nga nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew am na loo xam ne man maa leen koy baaxee mooy Idrissa Ndiaye bii ngeen gis toogatul Sénégal mu ngi diggante Maroc. ak bi te bu ngeen xoolee ba Maroc ak bi nangu Idrissa Ndiaye mi dinañ ci topp di daw di daw di daw ba sonn te duñ ci mën a jot euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax di ko wax nag Idi bul fàtte ni doomu réew mi nga. lépp loo am Sénégal moo la ko may. loo yàgg yàgg yàgg Maroc bàyyil xel Sénégal. loo yàgg yàgg yàgg Gambie bàyyil xel Sénégal parce que yéen li ngay dugg Gambie ak bari la loolu tey am na yeneen réew yoo xamante ne yaa ngi fa jëm euh, di ko ñaanal gudd fan ak wér rek di leen jaajëfal loolu lañu leen indiloon ci wasaare làmb di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ak beneen borom xam-xam jërë ngeen jëf.